Sango Gouma TV la chaîne du Baol salaamaaleykum maaleykum salaam eh eh, eh, eh, eh dafa ndànk oh, oh oh oh oh oh oh ni <laughs> ma ne ko ni xel di def dafa am ku may xel di seet yow tax yow yow lan lan moo tax nga may xel di laaj fu ma ma bëgg a dugg fii nga ne ma dugg yow sa yére bon yi nga ne da nga dugg fii ah yow xoolal sa comportement ah ni nga comportement moo gën a bon ci àdduna la comportement moo gën a bon yow yow sa baxana moo xel di bon mi nga naan la boo doo man maa la man maa la doole ah or na yàlla su ma lay xel di door su ma lay xel di yëra aju aju aju aju yow yow yow Niger doomu réew mi. Sénégal Sani Ndiaye Touba Gambie. Sani Ndiaye astafurlah Touba Sénégal. Sani Ndiaye. Sani Ndiaye la yow mi. waaw xanaa yegoo fi. yàgg naa fi kay. ah kër gi maa ko sànci. anamu moom mi ngi. dama awul génn ah nan de moon la. doxal nga war na ko waay. waaye yow. yow yow foo xel di jógee yow. man ah fii laa jugee. fii fii. fii si gi laa juddoo. fi nga fi nga gisee mbaax yi. fii laa gisee mbaax. Eh. fii laa amee ngant fii laa amee lépp. Eh. yow waaw waaw waaw loolu moo gën sax parce que wax naa ko ñoom si la ak ñoom Mbène faal Mbaye Kebe ñoom ñëpp wax naa leen ko Daba Sëy euh, Meya Dieng wax naa leen pour ñu préparer dem Mbàkke ci matti ak soña boo ko defee ñu ma ñu mën a defaree ñoom bi quoi. incha allah amul السلام eh, ini بوسينا ايه كي زال الله مام غري كي سما جرباب اه تجرباب من ايام bukan dari باي جربات I love you جربات I love you Oke ya, lagi يو ما wol won. وون باسكو dama la wóolu trop dama gis nga jambat trop en même temps da nga fonk ci liggéey bu baax a baax. dégg la kay deg la de. parce que dama lay gis ngay jaay lu ne. Euh, da góor moom liggéey moo ko war. aussi euh, kii sama jarbaal la man ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay. comme bañ la moo ko jur. waaw léegi nag dafa jóge woon dëkk ba ñëw fii bëgg a liggéey léegi nag man naa ko boole yow nga won ko njaay mi. won ko dekk yi parce que bëgguma muy muy réer lu melni ay jàkkee muuma jakkay muuma gédé gédé yon yoon daaru yoon daaru granel ngiraaneel dégg nga fépp koy duggal la lay wax ok nga won ko njaay bu baax dégg nga mataara nga dox ginaaw bu kenn jalgati ye ñaar du lu xel di eh duñ ko fecc xalaatuñ ko sax ko fecc jalgati kay fa xawé yak na ko tan nijaay mi ku yak la gat ñëwal deng nga wa waaw ok mataar kon ki la lay boole boo séeréer tudd pa do sodu d'aujourd'hui ah, yow lo bëgg jaay ah jërëjëf Ndiaye. bu billahi ah ah fitse. kan waaw ah, fitse wóor naa fitse. wóor naa fitse nee na fitse wóor na sëñ. yow yàlla li nga naan ma fitse. fitse kontaan sama xol moo tax ma ma wax loolu. waaw jërëjëf. da nga ma merci wala dara sax. ah nga ne ma waaw. ah kon merci ba ma. waaw ah, ah, nga am fitse li ma jaawale fitse ak merci. waaw waaw denc kaay nos kaay laa bëgg a jaay. dencikaayu noosukaay. waaw dencikaayu noosukaay. waaw mais dencikaayu noosukaay moom mooy loolu ma taa. dencikaayu noosukaay kon yow xamoo dencikaayu noosukaay. loolu eh, eh, eh, yow eh mais lan mooy denc kaay noosu kaay. slip lan slip lan. slip mel ma. slip bërëb xam ne néewi noonu. baax na dégg de waaw bërëb xam sili bu góor wala bu jigéen. yàgg góor ko fay. sili kay kay ah, ba man duma duma duma sol silib man waaw ah, man bañ na duma sol silib daal. yaa su ma sañoon yàlla silib. moom dafa xelul di xam. yaa su ma sañoon yàlla moom la may def sax. Ah, yii silib. man kay daa wëlër de. odeur gi moo. odeur gi ok léegi xam nga ñu def. dama lay wax wutal silib bu bugor, manam maanaam caleçon. caleçon ah, ah. caleçon bu ah. nga xam ne la jël koku boko ko yi di jaay ni jaay foofu moom daanaka jël góor jëm daanaka. waaw waaw man ya dal man limu bëgg dal moy silip jigen man bu dee am bénéfice fukki dara moma gëna gën a bi abbi set euh, euh, téeméer bénéfice. <laughs> dégg la waaw xamna sam jaay man. lan moo tax nga taamu. sërëbu jigen ah déggoo man ah man xet gaa ma cay rey moo ko moo ko ah, ko bëgg man. man sax man su ma sañoon sax man mi yàlla ak. sërëbu damay def xet la bu bu bes bi limay xey ah. mom la bu jigen bi di xey ma jaay ma jaay bu gorni jaay. Ah. Euh, dama lay yabal. Ah. nga dem si marché place su Gelas Dieng. place su Gelas. waaw bi de nek place suñu seelu ca kii yéem yi. jeex na la bu ko amul. daru minam nest pas do xam ngeen bàcc mbay. bàcc mbay xam nga xam nga bàcc mbay yow. dama ponk rek bàcc. ponk mbar mu rate mi wax nga dégg wax nga dégg. boo fa demee. incha allah ay kii am ay célibat yooyu yëpp ko jaay incha <laughs> mu jox la ah, ah fàtte woon naa ko di jaay aspirine eh, wax ko bu bu dee jënd mën nga ma jëlee silibu aspirine de silibu aspirine ah? Ah, aspirine ni waaw waaw waaw laab gi laab gi saa di jaay da nga buuxul ma saa di jaay rek sa nijaay mii di faxal di dox wayu la wayu nag sa nijaay kacoor la ma ne ko kacoor la ginnaaw si la yow di ngay man di ñëw après nga ñëwaat dama waaw amul benn amul benn tëpp na ma